sëriñ Alioune Gueye nee na noonu ragalu nu iblis ndax négocier na négocier na moom ba ñett yi mu nu war a musale musale nanu ko ndax iblis ñett rekk lañ koy ragale mu yàq sunu deru jullikaay walla ndox mi nuy naan walla sunu kurus léegi fexe nanu ba bàyyi nanoog ñett ñooñu mag ñi boo jullee seen der ba noppi ñu ni lemal maanaam bu ci seytaane dëkk boo naanee ci seen potu ndaa ba noppi ñu ni dëppal maanaam bu ca seytaane naan boo wérdee ci seen kurus ba noppi ñu ni defal ma ca poos ba maanaam bu ko seytaane laal ñi ñett ku ci seytaane musal la ca des boo dee avocat boo xam di nga ko mën a plaider waaw la ca des di ko mën a plaider bu la seytaane bàyyi ak sa sa jaada bàyyi la ak sa kurus bàyyi ak sa potu ndaa lu lew lu lew nekk ci sa biir seytaane du la jax-jaxal ci julli du la fàtteloo itam la nga war a jox sa boroom ci su kurus yi ñett moom boo ko amee ci moom lu ko neex na defati sa kër kër ga du tas kooku noonu rek la demee ku ko xas am ci seytaane mënatul tas sa kër sa xarit rek lay doon ngeen di copain waaw muy sa copain ngay copain mënatul la yàqal dara jeex na bàyyi na ak sa potu ndar lu lew rekk ay nekk ci sa biir bàyyi na la ak sa sajjaada du la jax-jaxal mukk ci jaamu yàlla bàyyi na la ak sa kurus du la fàtte loolu li la war ci sa borom li ci des nag lu mu ci def rekk avocat bi mën na ko layoo ah. yooyu ñett rekk la jara bàyyi xel la ndax luy dugg ci biir te lew dana tax jaamu gaaw a nangu am la Cheikh El Hadj waxoon mbokkam ma ko doon jëw ci guddi te xamul ni Maodo ngi ci gannaawam Maodo ngi sës ci sàkket wi mu romb ko di wax ah këram gi daal ñam yi neexul dara ndax boobu it Maodo amul dépense wax dëgg yàlla mu ni këram gi daal ñam yi neexul dara mu ni ko waaw waaw waaye yaaka lew mu ni ko waaw waaw waaye yaaka lew aka lew moo tax doomu aadama lu ko neex wax